asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina bokki taalibe yi Cees ñu ngi nuyu bu baax dina siyaare dafa am lu ma bëgg a leeral rek ci xew-xew bi nga xam ne moo xewoon Thiès muy xew-xew bu rëy ci man ndax xew-xewu yoon yoon wi la li ci am solo nag eh, dama bëgg gën a leeral eh, li li ko andi li ko indi dafa am ñu ñëwoon fi man jaaxle lool ci diggante bi nga xam ne Cees toll na ko may leen loolu yëfi mbooloo la ngeen dellu gëstu mbooloo gëstu taalibe yi bu fekkente ne gis ngeen ku leen doy ngeen dee si wax ma ko man joxe ndigal loolu biñ amee ab diir ma yónni sëriñ sëriñ Moustapha mii mu sëriñ Abdou ne ko demal ma ca mbooloo ma laajal ma leen ba la ma leen waxoon def nañ ko la ndax am nañ ko leen doy wala amuñu ko loolu rek moo taxoon ma jox sëñ Moustapha mi ndigal yónni ko ne ko demal laajal ma mbooloo ma loolu bu loolu amee nag xew-xew ba fa am am fa kon mënumaa xam la ko waral lu mu doon ma xam la waral xew-xew ba la ko waral lu mu doon la fa xew bu bu xewee doo xam lan moo ko waral loolu nag mu doon nekk nekk tooñ gu rëy tooñ sëñ Moustapha buñ tooñee sëñ Moustapha tooñu ñu ko man lañ tooñ man it nekkuma buñ ma tooñee sëriñ bi lañ toon noonu rek la mbir mu deme tooñ ku metti la ci man ndax noonu rek la demee nañu def sëñ Moustapha toroxal ko ci digg àdduna yañ ko yañ ca def yëpp ñu def ñu def ko ko loola mbir mu réy la ci man ci liggéeyal sëñ Tuubaa rek laa nekkoon kon bu ca loolu xewee rek borom yoon bi rek nañ tooñ ñun ay taalibe lañ doon yoo xam ne dañu doon ji bëggoon a nekk ci leen war a nekk rek nekk ci liggéey bi ci biir ak ci biti de eh, des rek moo di lu nanu nanu dolli gën a góorgóorlu ci lu demee noonu ak ci mboolem yoon bi ñun ñëpp nanu gën a góorgóorlu ci wattandiku yu demee noonu def loo xam ne boo ko defee ba noppi mu nekk tooñ gu rëy te jëlee woo ko fenn ko fenn loolu ñun ñëpp maa ngi maa ngi maa ngi ñaan tàmmale ko sama bopp ñun ñëpp nañ wattandiku yu demee noonu ëllëg si biir lu mu ci mën a doon lépp mën naa nekk mën naa mën nañ koo dox ci taalu bi ci yar teggin ci waxtaan ci diisoo ba leen ci bëgg ci defar nu am ca taw feex amee ko leen ko bëggee loolu lu mën a nekk la bu nu rek te teg nekk ci leen war a nekk wax lan war a wax def leen war a def bu ko defee rek lu ñuy lu mën nañ ca am taw feex ba lépp defaru nu amee ko nañ ko bëggee asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw xew-xew yooyu nga xam ne moo amoon ci Thiès ci kanamu Serigne Moustapha Mbacke Lakram mi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moo ko fa yabaloon te ñenn ci ay taalibe jëfee fa jëfin goo xam ne àndu ak taalibe te tegginewul ci kàddu yi nga xam ne Serigne bi doon na ko yëkkati ci turu xalifa général des Mourides kon Serigne Moustapha Mbacke Lakram def na déclaration moom it doon yëkkati ay kàddu di jéggal bépp taalibe boo xam ne am na noo ci taxawee ak it bépp taalibe boo xam ne wax na ci loo xamante nii waru ko a wax kon ñu ànd teelu kàddu yi sëriñ Moustapha Mbacke Lakaram. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi mbokki yoonu murit wépp mbokki uma islaami bépp mbokki àdduna bi maa ngi jégglu tey jéggale looloo tax ma jiital alhamdulilahi rabbil alamin dafa fekk ne waxtu wi démb maa ngi Cees teewaloon fa sëriñ bi ak Cheikh Mamadou Basir mi ngi sama wet ndax moo yore kàddu gi te nekku fi ma teeyu woon jotali kàddu gi ma sëriñ bi yónni woon ba la ma ca fekk fekk ma ca la ma ca fekk nag eh, mënoon naa ku ma xam-xam ne mën na maa fajal sama bopp lu ne ci wàllu àdduna waaye nag sama bopp sëñ Touba dama ko gënal te bëgguma sëriñ bi am benn fitna ci xolam ak ci xelam wala sama jëmm ak fi ma teg moo waral ginnaaw bi mu waxee ci biir ba noppi la mu wax ma ànd ak Cheikh Mamadou Basir jéggal mboolem koo xam ne daloon na ci sama kaw walla mu xapp suuf wala mu mu dóor may doj wala fitna ji am yépp jéggale naa ko ngir jëmmi sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha waaw na mu na ko ñépp xam képp ko aju ci man ba mu jéem a fayantoo ni ko sëñ bi afawtu andi lax daay turan jooju rek nañ nañ koy nañ ko nañ nañ ko wëyal ngir jëm yàlla rek waaw nga xam loolu daal sëriñ bi moom laa bëggoon a wax di la ko seereel di ko seereel mboolem bokki taalibe bi fi toog xam ne eh, jéggale naa ci nit laa rek koo xam ne ku soxla njëggal laa waaye moo tax ma jéggale ngir jëmi Cheikh Mahamadul Muntaxa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu